ba ci ñiy dem ci gaal gi képp koo xam ne tàggu nga ma mën la demal alhamdulilah boo demee da ngay àgg ci jàmm waaye képp koo xam ne tàggu nga ma mën la bul dem boo demee du baax ci yow. L'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te wóor. loolu moom yàllaa ko wax. waaw faaw ñu seet seet daal soo ko takk ki nga xamante ne bii moom nga bëgganteel. yooyu ma la wax yépp bu ci nit di dugg ba ci tukki boo ko seetee rek bu soobee yàlla yàlla mën na la cee defal ndam mm-hmm. nit mën na tukki tukki bis boo xam ne du bisam bu demee rek mën naa faatu wala mu am gàllankoor waaye buñ ko waajalee xoolal ko ba mu leer mu def sarax yam war a def def càngat yam war a def bu demee du am benn problème. sëñ Fall la mooy njariñu sarax ndax est nit mën na génne ay sarax kese aajum faju te du ñaanlu. lu mën a nekk la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne eh, sarax day fekk juróom-ñaar fukki deeyin yu ñaaw noonu mu mën a fekk dee nag noonu la mën a faj ajo dafa am sarax yoo xam ne saraxi kaaraange la am sarax yoo xam ne day ubbi bunti wërsëg xam naa bu nu ko jot gi maye moom yooyu yu ci ëpp mën nañ koy maye sax bu ñu nit ki woowee rek mën nañ ñu ko defal nangam defal nangam te boo ko defee da ngay day day baax. te du doon ay sarax yu cher en général. déedéet mën naa bañ a cher yooyu yooyu moom yomb lay doon. mais il faut nga seetlu pour mën a xam lan nga war a génne sarax. fi mu toll nii bàmba fii ne mën ngaa sarxe ñetti mbuusi ndox rek mu jural la ay milliards sarax daf maanaam dafa dafa dafa am nu ñu koy xamee man fii ne bu ma jëloo jëlee sa tur di am lu ma koy moye rek. dana dana taxaw foo xam ne dama naan la sarxel nangam te boo ko sarxee day baax nit mën naa ba mën nañ ko bëgg a tëj kaso mu sarxe dara kenn du ko tëj kaso nit mën naa am jafe-jafe wàllu wërsëg sarxe loolu rek suñ borom ubbi ay buntam sarax dafa yaatu yaatu goo xam ne xam naa du ñàkk bis dana ñëw dana def émission boo xam ne lépp ci sarax lañ koy wax. macha allah waaw loolu de am na solo parce que nit ñi war nañu xam seen sarax mais tam yaakaar naa ne balaa ñuy jeexal rek damay wax ci wàllu këyit nga xamante ne bi ñu bari dañu koy yombal waaye yombul euh, ñi nga xamante ne bi dañoo yàgg bitim réew bëgg am ay këyit te ba léegi mënaguñoo am ay këyit sëñ Fallou. li ci ëpp na gàllankoor yi mën na nekk ci nga takk soxna soo xam ne waroo ko takk wala sa yaram taq. léeg-léeg it am na am na loo xam ne fu xóot lay nekk moo tax ñaan jafe sëriñ su bari mi ngi mën nañuy wax ne dañuy ñaan waaye lu ci ëpp uh, du yomb ci ñoom ndax léeg-léeg nit ay gàllankooram ci waajuru waajuram wu jigéen ci lay bàyyi ko bu ko defee fii ne yooyu yëpp boo ko mënta xam nag pour nga ñaanal nit ki mu am résultat du yomb fii ne dafa am koo xam ne uh-huh. dañ ko boole woon ak soxnaam uh-huh. mënu ci dara uh-huh. te lool li ko li ko waral waaye juróom wu góor da daan soxla way juróom wu jigéen waaye juróom wu jigéen di bañ léegi ñàkk man ci soxnaam dara foofu la ko jëlee loolu nag léegi boo nekkul nit koo xam ne dangay ngay tëdd ñu lay wan wala nga am baatin pour nga mën a faj yooyu du yomb moo tax ñaan jafe macha allah euh, Serigne Fallou Kéemaan moom la ñu dalal ci jataay bile ci Setsima TV moom nag xam ngeen ko wax dëgg yàlla xalimaam du laal suuf lépp loo xamante ne bi ñaan na ko rek suñu borom def ci euh, barke. Euh, ñi ngi koy signaale sax mooy internet yi nga xamante ne bi ñoom lay jëflanteel wax dëgg yàlla moo tax saa su nekk ñu koy wóolu ngir ñëw jël siwaat ko waxtaan ak moom ci lu bare bari sëñ Fallou yàlla may na la itam ci wàllu ngóora hémorroïde city jàngoro yooyu nga xamante ne bi da nga ubbi cabinet spécial ngir di ci frais di ci traité loolu di ci faj ay nit di ci dimbali ay jaamu yàlla yu bari surtout ngóora waaw wàllu ngóora ak hémorroïde ak siti yëpp dañ ci defar ay garab te dañ koy traité ba mu tane waaye li ci ëpp rek li koy jur mooy siti city mooy ndey jàngoro yi yëpp yëpp yëpp yëpp te nit ñi pour ñu yàlla dim dimbali leen ci siti du yomb ndax li ëpp euh, li nga xam ne siti da koy bañ nit ñi dañ koy jëfandikoo même hémorroïde fii ne buñ la ko doon fajal ki ko dàq faj ci àdduna bu la ko doon fajal ngay jëfandikoo yim bañ pour nga am résultat du yomb mhm. bépp feebar bu mën a doon fi ñu la koy fajal faw ñu am yoo xam ne danaan la bàyyil nangam wàññil nangam ak nangam ba am résultat door koo jëfandikoo waat. Mm-hmm. man bépp fa feebar boo xam ne maa ngi koy fajal nit faaw mu am yu ma la tere teg la ci yoon diir bu gàtt incha allahu rabbi nga taxali ko moom. traitement bi ndax day yàgg ci siti traitement siti yooyu yëpp man man mën naa doon 15 sour un mois ndax nit ñi kenn ku ne am ak nam la dalee am na ñoo xam ne siti day da leen da leen dal da leen dal siti bu nekk ci biir lay doon ak bu nekk ci bitti bu fekkee ne siti bu nekk ci biir la dan lay jox ay garab yoo xam ne da traité bu fekkee ne siti bi nekk ci bitti la nag am na ay saabu yoo xam ne dañ koy defar siti bi lu mu génn génn génn génn boo ko dee sagoo da koy faj ci kaw bu ko defee bi ngay naan moo koy faj ci biir bu ko defee yi nga xam ne moom la bañ saa bu la joxee traitement bi dana la wax ni muy ni muy ni demee boo ko respecté rek diir bu gàtt incha allah da nga ci am ndam. hémorroïde mu jege siti lool sëñ Fallou. waaw dafa jege siti lool te ñi ëpp ñi muy dal mooy ñiy toog toogaay yàgg man sëñ Bamba hémorroïde dama cee gëstu lool ndax li tax ma gëstu yi man damaa mas a dal jamono bi may bind kaamil. dama amee woon hémorroïde ndax dama daan xëy di bind lu mat isib toogaay boobu jàpp ma ba ma amee hémorroïde moo tax ma ma gëstu ci lu doy waar tey nit ñi nañ bàyyi xel lenn toog moom saa boo koy def lu bari boo toogee lu yàgg jógal doxantu tuuti ñëwaat toog waaye bul bul enchaîner li ngay toog loolu moom boo ko defee sa hémorroïde man mën a mën a dem ba sonal la hémorroïde nag moom moo xam bi ci biir la moo xam bi ci bitti la nu mu la mën a dalee rek bu soobee yàlla boo ñëwee ñu traité la ko ba mu tane macha allah alors euh, sëñ Fallou Kémane nag yaakaar naa ne fi ñu jeexale tey mooy mbirum ngóora nga yor ci ay yu doy waar ay produit yu doy yoo xamante ne bi yaakaar naa ni man mos dolli laa ko tuddee ndaxit nag noonu la garab gi tuddu mos dolli boobu nga xamante ne bi sëñ Fallou mi ngi koy Euh, yor en tant que ay euh, produit yoo xamante ne bii la dafay faj ci ngóora ci sachet dafay yokk kàttan wala dafa lay dolli. jërëjëf sëñ Bamba mos dolli di garab gu am solo goo xam ne dañ koo liggéey te garab yi ñu ko liggéeyee yëpp dañ koy lekk mos dolli nag am na joni joni am na traitement. joni joni bi mooy lan. joni joni bi maanaam bu fekkee ne danga nekk nit koo xam ne da ngay gaaw a daanu te gaaw a daanu bi méttiwul lool lool lool boo demee bay tëdd avant ngay joteeg sa soxna une heure de temps boo ko jëlee bu soobee yàlla dootoo gaaw a daanu te boo daan sëy benn yoon da nga mën a sëy ñaari yoon ba ñett te sëy boo sëy rek day yàgg te mos dolli bi day dolliwaale ndox fii ne nit léeg-léeg nga gis mu gaaw a daanu ndoxam mooy woyof hmm. wala ndoxam xaw a manqué yooyu yëpp fii ne bu bu amee ci nit ki nit ki mën nay gaaw a daanu waaye bu ñu lay jox loo xam ne sa ndox day day dëgër moom dooy gaaw a daanu insha allah sitit mën na dem ba ba ba woyofal ndoxum nit lool lool lool nga xam ne dangay ngay gaaw a daanu wala bu bu bu demee ci kanamu ku jigéen ki mën nay waral lu mën a forme mm-hmm. ndax ndox mi moo dul normal waaye lu mu ci man doon ci yu mel noonu rek nu mu dalee nit rek boo ñëwee ñu tara traité la ba mu tànn incha allah. d'accord macha allah euh, mos dool di garab la gu ñu wóolu ñun yaakaar naa ni mooy suñu sponsor ci Setsima euh, TV ndax it nag ay produits la yu am solo ci wàllu ngóora ñi ko mos xam nañu quand même. naka la efficace ci wàllu ngóora ak euh, li muy def wax dëgg yàlla euh, du ma ci sax yàgg parce que sénégalais yi ñoo ko gën a xam moom loolu nga xamante ne bii rek mooy mos dolli fi ma koy tëjee rek mooy wàllu politique ak Ousmane Sonko bi nga xamante ne bii vraiment jàpp nañ ko tey ba gàll ci loolu dam ab mandat de mu nekk lu métti loo xam ne sénégalais yëpp tey xëy nañ di ko dundandoo ñu faal mbir moom noo ko jàngatee. jërëjëf laaj nga ma laaj bu am solo Ousmane Sonko moom lenn laay xamal sénégalais yi. lu man di xew nañ taxaw ci moom lii dakk ndax bu lii dëkkul danañ dugg ci fitna joo xam ne duñ xam fuñ koy waxee ji buñ taxawee ci moom nag ba mu am jàmm Sénégal dana nekk ci xar kanam boo xam ne ñi fi nekk ñëpp dañuy bëgg te loo yëngu da am dara ndax day nit koo xam ne jig na réew mi te bu jotee ci réew mi réew mi dana avancé avancement boo xam ne du jar sax gone yi di demate ci gaal yi réew mi dana am xéewal dana am wërsëg dana am naataange waaye buñ ko seetaanee ba liñ bëgg ci moom ñu am ko du baax waaw nag sànq suba maa ngi ko doon xool am na benn xeetu meloon nag boo xam ne buñ ko sarxalee rek yàlla mën na ko defal tawféex ñoom dañoo xaw a sàggan waaye leader yi nga xam ne ñoo nekk France woowoon nañ ma man nag comme li ma yor dafa wér moom sama mbir du yomb la ma leen waxoon bu ñu ko defoon yi xew yëpp du xew. ah dafa am sarax bu ñu waroon a génne te génnewuñ ko. ñoom dañ maa woon ñuy waxtaan pour ma ñaanal Ousmane Sonko. ñaan mën na lépp yonent yàlla Yuusufa ba mu duggee ca teen ba ñaan moo ko ci génne te loolu moo gën a garaaw. kon daal da gis ne Ousmane dafa génnewul sarax yi mu waroon a génne wala ay ñooñam génne luñ ko wax taxawuñ ko dëgg-dëgg ci wàllu sarax. taxaw ba des na bu taxawaay ba desoon. ñu def ñaan yeen leen wax yàlla xam na kon kenn du ko téye ndax yonent yàlla yunusa ba ko jën woo wannee la ko ci génne mooy ñaan kon ñaan ñaan mën na lépp yonent yàlla yusufa ba ko ba ko jën woo wannee aaya bi la doon sikkar ba jën wi yàbbi ko laa ilaha illa an subhanaka inni kuntu mina même laa ilaaha illaa subhaanaka inni kuntu minas saalimiin am na ay lim yoo xam ne dinaa ko composé ci turam ak turu yaayam buñ ma wooyee dinaa leen ci jox ay dog yoo xam ne bu ñu ko defee bu soobee yàlla fu mu mën a nekk yàlla dana ko delloo si jàmm. kon daal mën nañoo am yaakaar fi mu nekk nii. buñ ma woowee rek bu yàlla bu ma leen waxee yi ñuy def. Mm-hmm. bu ñu ko defee diir bu gàtt. Mm-hmm. dana génn ci jàmm te 2024 yàlla mën na ko cee defal ndam. jërëjëfati sëriñ Fallou kemaan mbokk yi moom lañ dalaloon na ah, ci émission bi nga xamante ne bii moom mooy seeti ndaanaan kéemtaan donc ñu euh, seqaw nag moom waxtaan ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax numéro téléphone yooyu di affiché au bas de l'écran mooy numéro téléphone Serigne Fallou Kéemaan donc ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax a baax a baax a baax leen sant. Euh, di ñaan nag en tout cas réew mi suñu borom def fi jàmm ba képp koo xamante ne bi nekk nga ci xat-xat rek nga génn ci rawatina Ousmane Sonko moom nga xamante ne bi fi mu nekk nii mu ngi ci euh, xat-xat donc mi ngi noonu mooy numéro téléphone boobu di 77 274 29 48 77 274 29 48 mooy affiché noonu au bas de l'écran mooy numéro Serigne Fallou ci ngeen mën a jokkoo ak moom mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm junior mi nekkoon ci cadrage bi. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te